mais saay boo xewee la ñu tawal la nga soxla leen Dakar nga soxla leen ci région yi ñu teewal la te yàlla may ñu chance également ñu dugg ci région yi gis condition également yi ñuy liggéeyee jot na tey fekkante ne journée internationale de la presse amna na ñoom ñu koy célébré jot na tey forum civil taxaw euh, euh, jooy ak ñom nakal bi nga xamné ne également ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy jooy ci lolu bo xolé ay mois ci ginnaaw euh, forum civil jënoon na ben déclaration pour demander pour laaj euh, ministère en charge de la communication et de la de la presse bi nga xam ñu euh, euh, les organes de presse ñan ñooy bénéficiaires yi bénéficiaires bi ñu laajee laaj boobu ba léegi amuñu tontu de la de la presse deuxièmement le Covid 19 nous avons am na ay mesures yoo xam gouvernement de pour yombal yenn charges yi au niveau des organes de presse il y ay station station fiscale Madame, dañoo dañoo ballon ay ay impôts organe de presse yi. donc xaalis boobu nga xam ne. état bi baloon na ko organe de presse yi. ndax dafa dem ci poosu patron de presse yi. ndax dafa dem ci journaliste yi ndax dafa dem également ci matériel journaliste liggéey laaj la donc bu fekkente ne journaliste également ñu ngi jooy précarité. forum civil dara waru ko lu dul teew comme ni muy teewalee également yeneen travailleurs yi comme ni muy teewalee également yeneen askan wi donc dina si jaajëfal bu baax a baax. Euh, boo demee ba nga gis réew bu mel ni Sénégal. Nous attaqué ay journalistes ay organes de presse diñ leen taal di agressé ay journalistes qu'est-ce que ça vous fait exactement en tant que euh, membre de la société civile sénégalaise euh, saay bu ñu attaqué wala ñu wax loo xam ne euh, rafetu journaliste forum civil taxaw na mu nekk les échos mu nekk ci ci ci liberté la presse liberté d'expression également bu ñu ko menacé également forum civil également taxaw donc euh, ñun duñ def lu dul rek di leen di tout le temps chaque fois également nous sommes ñu l'organisation organisation civile même le forum civil forum civil également teew pour xeex ak s'il vous plaît on peut arrêter les interviews. merci beaucoup alors